bokki julli di bokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi leen di delloo nuyoo di nuyu yëpp foofu la ñu euh, kon fa tabaarakallaahu dégg ngeen kàddu yooyu ginnaaw bi ñu ko présenté euh, kii doon wax mooy ambassadeur Cheikh Fodé Lamine Ndong euh, waaye du def lu dul rek tàbbi ci waxtaan wi nga xamante ni tey jii moom mi am na ñu mu bëgg nuyu ndax kër Cheikh Fodé am na xalifa général euh, xam naa ne dina nuyu xalifa bi nuyu njaboot gi ñu doog a dugg ci waxtaan wi kon Cheikh bi kàddu gaal yi noonu. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu bokki jullit yi yëpp di jiital si nuyoo bi euh, ñuy jiite mi di nuyu itam. kilifa diine yi si réew mi yëpp ñi nga xam ne gannaaw yàlla ñoo tax nit ñi di mën a waxtaanteeg si lislaam loolu weesoo ñu nuyu képp kuy xaadir parce ñun xaadir lañu di nuyu képp koo xam ne gëm nga Abdul Xaadir Jeylaani xëy di nuyu na Cheikh Sadio di nuyu itam waa kër gi ñuy waxtaanee tey muy Cheikh Fodé Lamine Ndong di jiital si nuyoo bi xalifam muy Cheikh Siaka Ndong di nuyu itam mbooloo mi nga xam ne dañu constitué wu seen bopp les petits fils de Cheikh Fodé Lamine Ndong di yëngatu bu baax a baax a luy dundal mbiri Cheikh Fodé Lamine Ndong te ki ko jiite tudd Jibril Ndong secrétaire général bi di Papis Ndao vice-président bi di Cheikh Ndong trésorier yi di di astu ndaw ñooñu en général bureau ñooñu ñoo koy ŋànk ak ñeneen ñi si topp euh, bu ko defee ñooñu ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi nuyu jullit yëpp di nuyu Sénégal yëpp képp ku seetaan bii rek ñu ngi lay nuyu wasalaam. macha allah di nuyu xalifa Cheikh Fodé Lamine Ndong Cheikh Siaka Ndong di ko ñaanal gudd fan ak wér yàlla na ko yàlla def ci moom def ko ci njaboot bi euh, ñu wax leen ne dañoo fas yéene waxtaan benn góor yàlla. ku Boromo, borom ku Boromo, ak borom lolou xamna ni ne ki koy faram faté leral ko mi ni tok de ngeen ay kàddam waaye balaa ñu continuer rek ñu bëgg waxtaan di la wax ni ki ñuy bëgg waxtaane muy Cheikh Fodé Lamine ndom mom moy kan Cheikh Fodé Lamine ndom tudul won Cheikh Fodé Lamine ndom ba mu juddoo parce que ba muy si ili

donc jaata mooy si soose gaynde ñu koy wax jatoo mhm. noonu lañ ko tuddee woon jaata ah, gannaaw ko nag ba mu jàng jee ba dellu si ba def jihaad ba tuubal ay nit jóge fa dem Mauritanie ba taseeg Cheikh na Cheikh Sadibou Aydara si la dellu see ak turi Cheikh Fodé Lamine Ndong mom mu ngi juddu en 1821 comme nima ko waxee léegi gañu en 1914 mu ngi juddu ci dëkk bu ñuy wax Diogaan Diogaan mu ngi si île Saloum yi mu ngi bok si commune bu basul basul ñëpp xam nañ ko mbeur mu mag mo mu ñuy wax yikini fa la dëkk donc Diogaan si commune basul la bokk basul bokk si arrondissement Niodior arrondissement Niodior bokk ci département Foundiougne département Foundiougne bokk ci région Fatick région de Fatick nag comme ni ngeen ko xamee ñëpp xam nañ ko booy dem Kaolack moo nekk ci yoon wi loolu mooy Cheikh Fodé Lamine Ndong eh, fa tabarakallahu dégg ngeen kon jàng ngeen ci mi ngi gën a àdduna en 1821 kon loolu du tey loolu xam naa dinañ ci ñëw léegi ci kanam waaye Cheikh Fodé ñan ñoo ay waajuram euh, Cheikh Fodé Lamine Ndong mi si Ily ay waajuram waajuram bu góor mu ngi tudd Buré mhm. Buré Ndong dëkk jogaan baayam waajur kooku jóge Falia waajuram bu jigéen mu ngi tudd ñilaan fay ñooñu ñoo ko meññi ñoom nag boo le boo jógee joogaan seen maam ñu ngi jóge dëkk bu ñuy wax Falia euh, fa tabarakallahu euh, jërëjëf loolu leer na kon dégg ngeen ay waajuram moom Cheikh Fodé Lamine waaye ñan ñooy njabootam moom Cheikh Fodé tabarakallah Cheikh Fodé am na tuuti njaboot parce que yàlla may na ko ñaar fukki bant ak juróom xam ne ñaar fukki bant ak juróom yooyu ñett rek ñoo si jigéen <laughs> ñi si des ñëpp góor lañu man nga si tudd taawam parce que problème dafa am si taawam comme moom balaa muy jàngi fekk na mu taawlu mm-hmm. dafa am ñu ne taawam boobu mu amoon mu ngi tudd Lat Demba. Lat Demba. Euh, parce que euh, xam ngeen ne ñoomin ko séeréer boo santee ndong ak Demba benn sant wi la ndong mooy Demba comme ni jàmme nekkee bopp ci séeréer boo gis ñu ne la bopp la sant rek moo kii sant jàmme ñoo bokk comme ni jara nekkee njaay ci olof yi mhm. loolu ñaari sant yi benn la Demba mooy Ndong si so si séeréer donc taawam boobu nga xam ne daf ko am avant l'islam di dugg si il yi avant moom si boppam muy jàngi mu ngi tudd Lat Demba am ñu ne nag taawam boobu moo ñëw Rufisque te am na Rufisque famille bu sant Demba ay xaadar lañu ñu yàlla may la ñu itam yaakaar naa ne ñoom lañu mais suñu gëstu mayaguñ ñu ñu mën a confirmer ak ñoom loolu taw bi nga xamne nak kan amu ci sakra mom moy imam ma ansu imam ma ansu ngara moy tawam bu góor ma ansu ngara mo jur e, birama ansata jur bakari ansata jur imam musa ansata birama ansata mom nga xamne moy tawam bu góor mom ma ansu moo jur suñu xarit bi gaañu mhm. muy alaaji duudu gannaaw maa ans boobu bon am na ay jigéen ñaari ñett jigéen wax naa leen ko moom Cheikh Fodé si Gangara si la bokk Amina Maama si la bokk ak Faatu Maama si la bokk bokk na itam si ñi mu jur suma waajur Moustapha Ndong ñu xamee ko Serigne Moustapha sa Kawlax wala boo demee Gambie ñu ne la Kandemba dëkk bu mel ni Bakindik wala Medina Maska wala fu mel ni Busra ñooñu Kandemba lañ ko daan xoowee parce que euh, soose yi encore ñoom boo jàngee itam buñ la tuddeewul fóodee tuddee la Kang moo tax ñu naan Kandemba loolu moo andi turam moo jur itam Abdul Qadir Abdul Qadir mooy waajuri kii nekk xalif bi tey bu Cheikh bu Chérif Cheikh Buna euh, Siyaaka moo jur itam Seydi Maama moo jur Sana Maama moo jur itam Ismaïla Maama mii gaañoo Guinée Bissau moo jur ñooñu ñëpp tabaarakalla bu ko toppee ñaar fukki doom yeeg ñeent dinañ day dina gudd. <laughs> mais ñooñu si ay njabootam lañ bokk. Ah. kon ci njabootu Cheikh Fodé lañ bokk fan tabaarakallaaw kon mbokk yi euh, dégg ngeen jëm ji nga xam ni xam naa ni incha allah moom la ñuy waxtaanee. dina gën a leer tuuti ci kanam rek ñu ñëw waaye Cheikh Fodé tey jii am na loo xam nit ñi ñu ngi koy tiitaroo muy xam-xam. ñii di tiitaroo njàng. ndax Cheikh Fodé bokk na ci euh, ñi jàng ci wàllu alquran wàllu xam-xam ak li nga xam ne moom la nit ñuy tiitaroo ndax Cheikh Fodé bokk na ci ñooñu xam ne jàng nañu. tabaarakallah jàng na que comme ni ma ko waxee léegi ba mu amee ñaar fukki at. Mm-hmm. ak benn takk jabar taawlu ay nijaayam ñoo doon dem Gàmbi di nooraani ba ñuy nooraani mu ànd ak ñu ànd ak moom ñu yegg Gàmbi moom mu gis kuy jàng alxuraan comme masuñoo dégg alxuraan masuñoo dégg kuy jàng alxuraan mu dugg ci xolam mu ñëw sëriñ bi ne ko yow li ngay jàng nii lan la mu ne ko alxuraan la mu ne ko man de lii dafa ma neex dama ko bugg a jàng kooku ne ko ah toogal nga jàng mu ne ko déedéet su ma toogee jàng su ma nijaay yi ma àndal ñëw nooraan si fii duñ ma fi bàyyee da ngay bàyyi ma def pexe pexe ma mu def mooy dafa dellu géej jël gaalam puus ko si biir géej gi ba mu rëcc si guddi gi mu dellu si dem si sëriñ bi ne ko nëbbu ma ñu nëbbu ko mu ne ma na ko nëbbu ma parce que suma gaal gi ma puus bu ñu ko seetee lu ma semaine gisuñ ko dañ naan dee na bu ko defee ñu mën a dem bàyyi ma fi loolu dañ ko fa bàyyee yegg dellu si seen dëkk jogaan si ili Saloum bi ne euh, jaata dee dee na parce que ba muy dem jaata la tudd ñu ne jaata yabaram teeñ yi loolu la toogee Gàmbi jàng fa ñaar fukki at ak lu tegu si dëkk yu ñuy wax dëkk bi mu njëkk a jàngee ñu koy wax Kerewan sa Gambi mm-hmm. ba mu jógee baax Gambi si Kerewan mu dem dëkk bu ñuy wax Soña Karantaba ba mu jógee Soña Karantaba dem beneen dëkk bu ñuy wax Tooña Karantaba mm-hmm. tey àddunay doxa dox ba ñaari dëkk yu mujj yooyu bokk ci Sénégal bokk ci région de Sédhiou mm-hmm. boo fa demee ñaari dëkk yi lañu boole tuddee ko léegi karantaba ñëpp xam nañu fan mooy ba foofu la jàngee si loxo benn borom xam-xam bu ñuy wax Moustapha Dabo bam fa jógee jàng ba ne ar la si mu ngi ñib si si île yi 1862 waaw comme moom ba mu nekkee Gambie ba nekk borom xam-xam dañu changé turam tuddeetuñ ko jaata ñu koy wax Fodé mm-hmm. Fodé si soose yi mooy ku jàng ba am xam-xam olof yi sax dañ naan fóore diw fóore la mhm, mhm. donc walla nga ne tamsiir tout ay ay la si njàng mhm. ba mu jàngee bon gàm bi ba am grade yi fóode ñu koy wax euh, maam comme ma commencé na magal ñu naan comme maam fóode loolu moo andi maam fóode bi mais comme dafa daan collaborer ak Maba Jaxu ndax xam-xam bu ko yàlla mayoon moom Cheikh Fodé Lamine Ndong si baatin euh, Baba Diakhou temps buy dem jihaad Cheikh Fodé daf ko daan yónni ay taalibe ñu di ko jàppale ji di jihaad donc jihaad boobu Cheikh Fodé ba mu ñibbisee 1862 di oote si il yi ñu naan ko mais yow li ngay oote lan la mu ne leen lislaam la mu ñu ne ko luy lislaam mu ne leen diine la ku moom diine yi ñu mun a yàlla kan la ko yónni ñu mun a yónnent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oote de 1862 ba 1868 woyuwuñu ko mais si woote boobu ak naxaate boobu naxante boobu mu ngi doon suivre ba Jaxu si jihaat ba mu doon ji jihaat sa kaw ga parce que ñun si biir géej lañu dëkk mu ngi koy suivre di suivre Cheikh Oumar yu taal itam fii ba Mali parce que mag ñu njëkk ña dañ daan dañ daan lënxaloo si xam-xam ak yëgante mm-hmm. 1862 boobu ba mu toogee ñetti at muy 1865 Cheikh Omar Fouti yu disparaître dëkk bu ñuy wax Bandiagara mu ne ah ñun kat Maba Jaxu mi ma daan kol des na Bandiagara ñu ne der ñu tegaat si ñaari at muy 1867 Maba Jaxu gaañu mu ne ah caaxaan jeex na man maa ngi doon yaakaar ne ma ba Jaxu bu jógee Saalum si kaw gi daf na woon daf ma waxoon ne day dem sin bu joge sin si kaw gi jaxaw ak lu wor jaxaw dina dugg si sin gi nek ci bir ili yi nak nag ba euh, sombu ñu ray ko mm-hmm. en 1867 comme ray nañ ko ma ngi delu gambi wa ili wax ona len si diine ji ba sonn dégguñu ma mm-hmm. gëmuñu ma xamuñu li may lan la nit ki nag boo ko ootee oowee si diine waxtaan wax ak moom neexal ba sonn mu bañ da nga koy imposer diine mm-hmm. ba maa ngi dellu Gàmbi gi nga xam ne amoon naa fa ay taalibe ànd ak ñoom dugg si île yi tuubal leen par force loolu moo indi jihad bi mu def en 1868 tubaab yi ba ñu demee boole ji ko gore ne am na benn soose bu jógee Gàmbi mm-hmm. bu ñew di tuubal nit ñi ci id yi parce que ñu bari xamuñ won ne cheikh fodé la cheikh fodé ñom jappon nañ ne dee na ba jaayam yi ñëwee ne dee na soose boobu tax tey si bo demee si il yi ñoo bari ñu bari bo leen ne ku leen tuubal dañuy tëbatëb ne la benn sosé mo ñu tuubal ñii ñe fodé kaba dumbu la té fodé kaba dumbu yaa masul tek tankam si biir id yi mhm. donc kan la sosé bobu cheikh fodé min dong la tubaab yi ba ñu bañ leen waxee loolu ñu commencé bombarder îles yi bombardement boobu bataille boobu ñu ngi koy tuddee la bataille de crocodile moom la tubaab yi bind tuddee ko bataille de crocodile fu ñu dégg de Cheikh Fodé dem na si île boobu rek ñu bombardé foofu pourquoi crocodile parce que bombe bi boo ko sànnee si géej hmm. bal yi ni muy def nii si biir ndox mi day mel ni jësit moo tax ñu tuddee ko bataille de crocodile ah, waaw so séeréer yi sax ma suñu maam yi ñun ñuy nettali ne comme seen tuddee la bataille de Corcodou ñu ne dañ ne ah parce Corcodou ñoom ñu ne ñu ne Corcodou ah, maanaam dafa am tuddoon koddu waaw euh, madame rek comme jàmbaar la woon ñu naan Mbacke Corcodou mm-hmm. euh, donc loolu mooy bataille ba mm-hmm. ba mu defee jihaad boobu 1862 1868 mm-hmm. ba pare ay ati at tuubal ñu bari si il yi commencé di yónni ay élimaan si il bu nekk ñuy jiite tabaski ak korite ba mu defee loolu yépp ba yaakaar ne lislaam bi taxaw na si il yi liy jaaxal nit ñi tey ba tey ba mu am juróom-ñetti fukki at la xëya xëy rek ne mes ñu ne deyaat na te li ñu xamul mooy da fekk na dañ ko oo Casamance ba mu ne mes noonu dañ ko oo Casamance loolu moo andi Fodé Kaba Doumbouya bi ñu foog ne moom la Fodé Kaba Doumbouya keneen la bañ ko oowee Casamance dafa am benn joolaa bu ñuy wax Bakary Badji ñu ne ñii ñu ne Souleymane Badji la tudd moom lañu ñu terewoon mu julli dëkkam mu ne amandee ah, dégg naa benn nit yàlla boo xam ne maa dem Demba kooku ku man kooku bu ñu la buggee tere diina ji dafay ñëw xeex ak yow ñu oo ko mu def jihaad foofu fofu la disparaître en 1900. 1900 ba mu disparaître en 1900 ndekete mu nga fëll ji Mauritanie dëkk bu ñuy wax Hawdu. fa tabarakallahu eh, loolu am na am na solo ndax eh, comme liñ ñu doon bëgg a wax bokk na ci fee yi nga xamanteni Cheikh Fodé def na ko. kon buñ ci yéen ñi ñi ñuy seetaan ci seen télévision Qadria TV kon xam ngeen ni kon ku def jihad la moom. waaye jihaad nafs la doon def waaye amoon na ay noon yu koy pexeel ngir loolu bañ a nekk mooy tubaab yi ndax tubaab yi kon li Cheikh Fodé doon def arrangé wu leen ko wa tabaarakallaahu eh, mu nekkoon kon ni ma ko laaje woon borom xam-xam kon ku jàngoon la ku xamoon li yàlla wax la xam li ci yàlla Muhammad bëgg fa tabaarakallaahu waaye bala ñu continuer ci loolu eh, tey ndax moom njabootam boobu nga doon wax léegi ndax am na moom amoon na jotu jàngaleen alxuraan wala daf leen a joxe ñu jàng alxuraan wala dafa am ñu ci fipp dem jàngi ndax laa pil ci jamono nit booy jihaat day jafe nga wuññee pour jàngale mhm. ndax doo ko tal mhm. ndax li nga li nga doon def day ëpp solo mhm. que euh, lii ba euh, toog di jàngale mais ndax loolu amoon na ci njabootam ku jàng wala ñu jàng wala ñëpp jàng noonu wala euh, kan moo ci jàng daan jàng moo xam ne xëy na dina ni kii kat doon na loolu ci waajuram tabaaraka la ahsanal xaaliqiin xam nga histoire daf ñu xam dafa doon dama lay nettali liy weesu pour nga jàngat si mhm. ñun itam dañuy seetlu si liy wees ñu jàngat si kaay yi Cheikh Fodé Lamine Ndong Diogane moo di ne bu ñu jàngatee nit ñi mas a def jihaad boo koy xool kenn amul joti préparé këram pour ni li xew tey ñu koy def ndono. Mm-hmm. buy Cheikh Umar Foutiyou Tall ba xam ne moom nañ mën nañ ni moo leen jëkk a def jihaad toog nañu ba yegg si si sëtam Seydou Nourou Tall ñuy sore commencé di oote kër ga. Mm-hmm. mais lu jiitu loolu Cheikh Umar Foutiyou Tall rek Cheikh Umar Foutiyou Tall Cheikh Umar Foutiyou Tall. léegi nag la ñuy commencé nag euh, yëkkati kër ga. Euh, te bokk na si ñi ko gën a yëkkati te ñu xam leen mooy Seydou Nourou Tall te loolu li ko ko gën a tax a yombalal loolu muy collaboration bi mu collaboré ci waawoon xasatan Cheikh Abdoul Aziz collaboré ko gouvernement bi xasatan Senghor ba yàlla def kër gi gën a taxaw taxawoon na ga parce que Cheikh Oumar Foutiyou daal itam géej la mais loolu bokk na si li ko dëgëral boo jëlee Maba Diakhou Ba itam tey la ñu commencé di kër ga mm-hmm. mais moom nu mu nekk tekk almaami nga xam ne képp kuy kilifa diine tey si Sénégal sa maam dem na fekki Maba Jaxu jàppale ko si mm-hmm. jihaad bi mu doon jihaad parce que ñi xam nañ ne Maba Jaxu ba muy def jihaad Serigne Ablaye Niass demoon na jàppale ko Serigne Ablaye Niass moomu moo jur Baye Niass moo jur itam xalifa ñas muy taawam bu góor sëñ Ablaye Niass moom donc moo moo leen jur moom Baye ñas mi nga xam ne tey euh, ñëpp xam nañ ko ak Khalifa Niass mi nga xam ne tey ñëpp xam nañ ko kaw la si jihaad boobu itam si euh, la ko Mor Anta Sali dem fekki maam Mor Anta Sali te maam Mor xam nañ ne moo jur Serigne Touba si jihaad boobu almaami Maba Jaxu doon def mhm. si la ko Lat Joor Ngoone Laati ñëw fekk ci ci jihaad boobu al itam la Alburi demee jàppale ji ba mais malgré xoolal kilifa diine yooyu yëpp ak kilifa àdduna yooyu yépp dem fekk ji ma Jaxu di ko jàppale ci xeex yi mu doon xeex mhm. te terewul ba mu deewee kenn déggatul famille mhm. tey la ñu commencé di ko yëkkatiwaat parce que li koy waral mooy kuy jihaat ñaari du am joti def leneen lu dul jihaat presque mm-hmm. mais terewul euh, wa bu fekkee ne am nga njaboot boo xam ne am nañu seetlu dañuy jàng par exemple cher Cheikh Fodé Lamine Ndong mi ñuy wax ni tawam bu góor bi ñu xam ma wax ko léegi muy Ma Ansu dafa jàng ba nekk élimaan mm-hmm. élimaan yooyu ñu daan yoon ne si ili pour ñuy jiite tabaski ak korité moom si la bokk doomam yi muy wax Moustapha itam mu ngi may su mooy suma waajur mu ngi may wax maam fa dama ma ne ma xam nga def naa ñeent fukki at ak juróom yoo xam ma defuma lu dul diw moo dàq nangam ma sol suma dem daal dem fa mu bayloo ma wala mu liggéeyloo ma ma jàng si moom la mu la mu am looloo moo loolu moo ko yóbbu dëkk yu baree baree bare moom Moustapha te doomam la mu am setam bo xamne ne itam moom mos si moo si ñu koy wax imam musa Ansata mom mom suñu imam yi mujj suñu dëkk la jogal moom itam dafa jang bané ar ba nek eliman ci dëkk ba donc amna na doomam ak setam yu jang mais dama yaakaar euh, mom amul won joti to parce que amna na nag li ñuy tuddee ñun tay si suñu organisation les condisciples amna na xamné ño ko topone andon ak mom si ili ñepp ñëpp xam le ñooñu itam am na si ñoo xam ne moo leen jàngal ku mel ni Famara Ngees Sarr bu euh, euh, nu mu tudd Ñoojoor ak Jiita Sarr bu Baasu ak euh, ma Ansu Kumba bu Joogaan ma Ansu Kumba boobu sax bokk na si Cheikh ñi de ma masa yónni ñu dem jàppale ji Maba Jaxu si jihaad bu mu doon def dëkk bu ñuy wax Paoskoto ñu koy wax ñu ba ñu koy wax la guerre de Pathé Badiane donc loolu yëpp si euh, yi mu bàyyi la mais euh, formé na njabootam si li mu man parce que loolu moo fi xewoon temps yooyu mm-hmm. misaal yi ma joxe ba nga xam ne yàlla def na ñun ñii ñëpp si yooyu la ñu juddoo bay jéem a góorgóorlu pour xam si tuuti fa tabaarakallah loolu defe naa ni kon am na solo dafa euh, ci waxtaan bi dem na ba Cheikh Fodé dellu na Casamance am na ku fa dimbali ñu koy wax Badji Souley Badji boobu bi mu fa jógee nag Cheikh Fodé dañoo dégg ci biir waxtaan yi mu ni dem na fu ñuy wax xawdu fan mooy xawdu ak kan la fekk ci woon xawdu ak ban at la dem xawdu ak na lan moo taxoon mu dem xawdu bu ñu déggee ne dem na xawdu ñu war a xam lu ko fa yóbbu nu mu demee lan la fa am mm-hmm. tabaarakallah sanal xaaliqiina donc Cheikh Fodé Lamine Ndong wala bu la neexee nga ne Fodé Kaba Doumbouya ba anglais yi coordonné français yi ak Paul Foude yi ñu koy wax Moussa Molo te ki ñuy wax Moussa Molo Balde jiite leen bañ ko buggee rey si fu ñuy wax Madina Fodé Kounda mu nekk si boori Sédhiou ñu foog ne rey nañ ko dekk dafa disparaître dem xawdu 1900 la fa la fa jóge waa joogaan yi gisatuñ ko parce que Cheikh Fodé bokk na si ay qualité mën a nëbbu parce que xam na ne bu nëbbul woon ñu sàkkal ko pexe parce que nit ki boo ko situé si jamonoom rek ñamu bokkaloon jamono yëpp ku si oote si islam jéem nañ la sàkkal pexe mhm. ñoom ñëpp donc moom mënul échappé loolu xam loolu moo tax muy nëbbu ba mu demee xawdu question ba kañ mooy lu ko yóbbu xawdu mhm. ak itam diggante Casamance mhm. île du Saloum ba xawdu naka la fa demee parce que nag soo jëlee calcul bi ça te fait au minimum mille cinq cent kilomètres muy ay question yoo xam ne laaj na réponse mhm. mais réponse yooyu balaa ñu siy mhm. ñu wax rek ban at la dem xaw mu ngi dem xawdu 1900 1900 ba mu demee ñii ñu ne leeri cheikh na cheikh saabu dubu la gis ñii ñu ne leeri Mouhamadul Fadil la gis ak lu simante am ñoom ñaar ñëpp fekku fa kenn mhm. xam naa buñ koy misaal mu gestu ci càmmoñam gis beneen leeri cheikh na cheikh saadibu mu bàyyi bu jóge xawdu dem fekk cheikh na cheikh saadibu dëkk bu ñuy wax tooy ziqt mhm. ba mu dem mu ngi yegg tooy ziqt taseeg cheikh na cheikh saadibu 1901 1901 nekk ak cheikh na cheikh saadibu tooy ziqt juróom-ñetti at ba nekkee moom juróom-ñetti at cheikh na cheikh Saadi bu war a toxu dem sànci Nimsaat 1909 mu ànd ak moom dem Nimsaat 1909 donc mais lan la seq ak seex na Cheikh Sadibou. moom Cheikh Fodé. la mu seq ak seex na Cheikh Sadibou bu la ñu xam.